affaire non Khalifa Sall ci wax parce que je ngeen ne def ci bugul da wax wala daf ci Khalifa Sall parti socialiste donc li nga xamné ne lay def ak ñi mu lolu euh, la concerné wax affaire mais ñom la concerné <laughs> donc waaw su comme maire ñun yéenewuñ benn maire mu am jafe-jafe ñu di ko yóbbu ci ay kaso ak yooyu ku nekk ci kaso rek dañ lay ñaanal nga génn ci ak jàmm loolu mooy te loolu aussi xam wax naa ko waxaat naa ko loolu moo nekk ci man mais nag duñu loolu du tax dañu bàyyi justice bi mu def liggéeyam juge bi loolu la jàng juge bi loolu la xam dañ bàyyi juge bi mu def liggéeyam su juge bi defee liggéey bi ba nga xam ne procédure procédure bépp jeex na alors waa politique waa politique ñoom mun a dugg ci ci mbir mi du loolu